mbokk senegal maa ngi leen di nuyu vidéo bi nag dama bëgg yéen ñëpp ngeen marché partagé ma ko te diglu li ma leen di wax lu bu baax baax a baax te képp ku ci gis sa bopp it nga bindal ma ko ci commentaire bi dama leen di laaj yéen ñëpp seen dëkk yi ñaata ngeen di jënde mburu man fii ma dëkk daaru Mouhty état du Sénégal dafa wax ne mburu fanweeri juróom lay jar fii ñu dëkk Darou Mouhty mburu deux cent francs lañ ko fiy jaayee dem naa Touba def naa gëstu mburu fanweeri juróom la nga fay jaay mboolem région bi fii nii mburu fanweeri juróom la nga fiy jaay mais seul Daaru Muxti ñooy jaayee mburu 200 francs te loolu du dëgg du yoon nga digg fa yàlla am son excellence monsieur le président Bassirou Diomaye Faye dañ la wóolu tegle ci réew mi ci anam bu rafet te gis nañ taxawaay bu rafet bi nga xamante ne amee ko gis nañ li nga def mbuurkat dañoo bëgg nag nga dimbale ñu ngir jëmmi yàlla mburu mii mbokki njoobeen yi ñu dee jëfandikoo 200 francs lañ koy jaayee fii contrôle économie bu fekkee am na ci raison bi yabal ko Darou Mouhty gi ñëw lijjanti mburu mii ñuy jaayee deux cent franc mburu kenn waru koo jaayee deux cent fanweeri juróom lañ ko war a jaayee loolu mooy liy dëgg yéen ñi nga xamante ne bi yéen ngi seetaan vidéo bi te gis ne gis ngeen seen bopp ci mburu deux cent yi def leen ko ci commentaire yi ñu ànd xeex lu mel noonu parce mburu kenn waru koo jaayee deux cent am na ci ñoo xam ne sax nee na ma day dem ba ci yeneen dëkk fii ay Sam Yabal ak ay dëkk yooyu noonu xam ne vingt kilomètres seen digganteeg Daaru ñu di ko fa jaayee fanweeri juróom te mu dikkee ci dëkk bi dëkk fi jaay deux cent ndax loolu lu xiyaasu la ndax loolu lu yenu maanaa la loolu laaj naa leen ko kon yéen ñëpp maase leen ñu xeex xeex bii ni ba mu jeex tàkk te xam ne mburu kenn waru koo jaay deux cent franc fanweeri juróom la war a jar nan bàyyi askan wi nii sonal di leen di leen di leen bundu xatal waaw nan bàyyi askan wi ni sonal di bu état bi defee fanweeri juróom yow nga bëgg dikkaat defaat sa deux xam nga loolu sëñ bi dafa metti te réew mi réew mi dafa dafa métti ñi ko yoragun nii mënu ko te neex parce que dañ koy doog du yor wax dëgg fi yàlla